képp ku accusé nit ku mën doon bu ñu wax sa aji saar parce que yoon bi ñu koy bind aji saar taxul mhm. ku jàng droit dañ naan nit bu tegee ci deru leneen mhm. ñu yóbbu ko ci yoon bu dee nag yoon nee na kooku deful dara lan moo lay nekk mhm. du aji saar rek du dëgg la loi est impersonnelle et général kon aji saar taxul ñu bind loolu dañ ni bu dee dafa am classement sans suite mooy bu procureur ne lii ay caaxaan la teg ko ci suuf wala juge bi dem ba ci biir bu ne non lieu ordonnance de non lieu mooy standard naa gisuma dara loo xam ne ab charge la ndax bis biñ ci wax waa ji génnul këram couvre-feu bee taxoon wala bis biñ ci wax xale bi jigéen ma nekk foon ay éléments yoo xam ne vraiment amul benn charge lii ay caaxaan lay nuru wala bis boobu xale bi daa feebar liggéeyul dañu bandaas loxo loxoom lii nii nuru lu nekk dëgg cest à day tax day fàngaaral te juge bi ne ah leer na ni vraiment plainte bi caaxaan la muy non lieu ñu bàyyi la wala ñu dem tribunal taxaw bu dee bu dee correctionnel la relax la bu fekkee ni soo ngeen yéen ñaa taxaw ñu laaj kii wax kii wax on oh, témoins yi avocats yi plaidé ñu mettre en délibéré juge bi ñëw ni relax wala muy acquittement devant donc la cour d'assises wala la chambre criminelle loolu loolu la yooyu bu amee kii taxoon ñu topp nit ki yoon da koy topp mais ci kaw ki mu toppoon bëgg a fayeeku ba koy woo yoon ni ko yàq nga sama der lu mooy dénonciation calomnieuse mooy danga maa waxal loo xam ne amul yàq nga sama der ba may waxee yoon yow léegi ne tëj jox ma nàmpaay képp ku yóbbu ci nit yoon yoon gàntal sa yóbbu bi ñu ne da ngay caaxaan seen nañ ba xëy na ko gisuñu dara procureur xool plainte bi ni kii plainte caaxaan la ñëw naan dafa rombul sama kër di walis porté ko plainte procureur kii ku yabaasee teg fii instruction ñu dem ba ci biir i waay kii dañ ko sàcc li ki dama masul am ñaar dërëm kii bi nañ ko sàcc kooku mën na ko jënd waaye waaye non lieu xam nga amul change relax ñu dem taxaw ci baar bi am na nga ne kii xàmmee nga xàmmee nga kii mu ne déedéet ah tii kii moo la sàcc ñu dem jàpp ko koñ koñ bi taxaloo seen koñ indi ko prison jour jugement bi juge bi ne ko xam nga kii mu ne non non a ah yow yaa doon Ibrahima Ndiaye kon di nga dégg turam rek ni Ibrahima Ndiaye moo la sàcc ñu relax te nga dem mm-hmm. ñooñu am nañu droit wàññeeku porte la plainte ndax dañoo yàq seen der mooy dénonciation calomnieuse kon bu fekkee ne Adji Sarr li muy wax dara amu ci bu ñu demee ba ci biir dara amu ci yoon day dal ci kawam après bu fekkee ni waa jooju muy Sonko da def ko bëgg a toppaat kon euh, am na ci droit. Mhm. mais bu fekkee aussi nii dem nañu ba ci biir question bi kenn dangul posé mooy bu ñu demee ba ci biir ñu ne kii Adji Sarr accusé moom la mais mais koy tëj. c'est une évidence amul dañ ma comploté. c'est une évidence amul politicien la. amul dañoo tegoon Khalifa Sall ak Karim Wade kon man dañu maa bëgg a fagaagal bu yoon wanee ne yow la pièce de wane ne yow la plaidoirie wane ne yow la intime conviction juge yow la prison ngay dem. mu ngoog donc réponse bi leer na merci. Euh, euh